lañu wara war a arrêté loolu mooy dëgg nit ñi kenn momu len fi kenn du fi papa nday kenn wala nga yaayu nday kenn kenn ragalu fi kenn kenn faalu fi kenn le gars il a fouté limu wax waru ko wax ku ku ku xam deug te gem deug te xam ni deug yalla moko ko tu sais que ni que le gars limu wax waru ko wax waru ko wax parce que ay promoteur yow joxolen leen joxolen joxo leen département bu tuddu ministère de la culture te promoteur yi sax mosu ñoo ñëw si moom di ko laaj. moom na bàyyi bañ laaj. lamb lamb lamb lamb bokkul ci culture lamb lamb lamb bokkul ci culture. di la bokku kay. waaw mais léegi keneen la. lamb bokkul ci culture lamb bokkul ci lamb bokkul ci culture bokkul ci sport. xoolal booy bu ñu la tuddee drapeau soo mënul dem demal soo mënul dem bu dem. amateur yi bëgg làmb dañuy dem dagg seen ay ticket looju cent mille francs di dagg ay seen ticket. Giar commencé la bon. Bour Gueweul nekkal nit. Bour Gueweul. nekkal nit man li may wax sax mooy man Birame Souleye Diop le premier le ministre le ministre de l'énergie man Birame Souleye jot ci boppam laa mere parce que yéen ci seen bopp da ngeen a jarul maanaam da ngeen a jarul tudd ba muy ba muy ba muy leen di boole ci gem bi maanaam yéen ci seen bopp maanaam da ngeen a nekkoon maanaam maanaam sénégalais yi xam nañ kii kii axlu làmb lañu showbiz bi lañu warul woon may occasion ñuy am lu ñuy wax Birame sur Diop wallahi limu wax mom la gëm engagement am la mais man bu doon du ma ko wax luñuy ñuy jëf la gis nga rupture bi que da ngeen koy jëf bu qu'on ko wax bayi len ñuko wara wax ñu ci réseaux sociaux bi di len ko muy tok muy dox muy alalu kenn duko ngeen wax askan bi ba askan bi gëm len len projet jox len réew mi kon da ngeen koy doxal jarul wax parce que day nuru discrimination day nuru que da ngeen ni beddi ñi wala da ngeen victimiser mo da nga gis waa lamb làmb wuñu dara man ci lamb la bok budé far par parlo ci lamb la wara far donte man d'accordu ma Birame Souleye yëkkati kàddu yi diko wax parce que dafa leen may occasion ñuy yëkëti seen cadeau yi di wax té yeen gouvernement bi da ngay na am obligation développer lamb développer football bi développer handball bi développer viet voda bi développer lépp luy sport ak lépp luy secteur ci lamb kon pasar pasare bi ak jël lu ñëpp bokk di seddo séddoo loolu la ñu tere du am loolu la askan bi gëm ci yeen ba votel leen muy rupture bobu lañu soxla kon tok di di wax sax ba ñi di ci di di nga xamné ay ay statut système lañ yag nañu bëgg bu suñu bëgg li xew tay am muy changement bi am xam nañ ni la won woni nañ Birame sulay boko waxe boko Senegal waxul képp ku nekk ci Sénégal xam nañ ni yeen da ngeen pour doxal Sénégal da ngay na ñew pour jël Sénégal limu mom ñu bolé ko sénégalais mom ko kèn dootul lakatu ci ginnaaw lamb di teug ay lamb di jël ay milliards politiciens di jël ay milliards diko ko jox lamb ji pour neub seen ñaawteef pour ñuy endominer le peuple sénégalais. buur da noppala sa bob gis na borom bob bu ngand boobu jekko euh, xoma gis nga man xamna len bu baax yam len rek ngeen dal man biram sulayla mère bu baax ndax waru fi won nek di ay ce n'est pas ni le moment ni le lieu rupture bi xoolal Ousmane Sonko taxawaay bi mu am loolu mooy rupture xoolal Bassirou Diomaye fay li ñu taxawaay bi ñu am ci ci korité bi moom ak imam bi nga gis kee dem julli jee ca ca cité kër góor gi ca biir ca biir ca biir peuple bi ca biir askan bi est-ce que dégg demul ne leen ma place Masalikul Jinaan ca kanam comme ni ko Youssou Ndour defee tam wala mu dem ca wetu Bassirou Diomaye Faye dafa dem ca biir askan wa sa cité kër góor gi julli ci biir askan bi comme ñëpp kon rupture bi yéen doxal leen ko bàyyi leen ñoom avocat du peuple ñu nekk ci réseaux sociaux yi ak ñeneen ñi nekk ci réseaux sociaux yi di leen xamal ni làmb yi du leen doon ko tuddeeti loolu débat wu ñeneen ñi nga xam ne maanaam patriotes yi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi loolu seen débat la mais du yéen ministre yi yéenay taxaw di wax débat boobu débat boobu du woon pour yéen mais ba mu génnee mais ma gis ay réaction ñi nekk ci làmb di di di di di ñot di benn important mais du ngeen ñoon du ngeen yem yéen amatul tuddee làmb loolu dafa leer parce que tout dinañ fexe ba làmb ji développé ba yéen promoteurs yi du ngeen soxla ñu tuddee kenn làmb pour seen bis baax du ngeen dem di fëgg benn bureau ministre pour di lambar lambari foofu pour pour tëgg làmb dinañ fexe ba làmb ji secteur yëpp mën a développé mu am subvention ñu dindi fi CNG bi di sàcc seen alal yi di sàcc alalu mbër yi di pervers di jaay doole mbër yi di lekk alalu mbër yi dinañ fexe mu juge fi ñu teg fi li nga xamante mooy doxal làmb ji ba làmb ji ku nekk gis sa bopp état di ci def lu mu ci war a def du doon may du doon sarax dafay doon dëgg parce que man damay wax ni état soxlawul muy làmb wala muy bëgg football wala muy bëgg euh, art pour développer ko dafa am obligation pour développer art mooy temps yi naan Macky Sall bëggul làmb moo tax moo tax jàppalewul làmb ma ne leen Macky Sall soxlawuñ mu bëgg làmb wala mu bañ làmb dafa am obligation développer làmb parce que làmb sport la te ay ndaw yu réew mi ñoo ci yëngu te projet Pastef bi làmb daf ci am wàll mais caaxaanu alalu réew mi la leen su lay wax dootu fi am nekkul dañoo bañ làmb wala dara bu ko bañee dañ koy développé mais dootoo leen tëggal kenn làmb li ngeen war a wax kay mooy ñun kay sax tuddee drapeau sax yéen da ngeen ko war a da ngeen war a taxaw sax ni ñun loolu bëgguñu ko bu ñu sañoon ñu jox ñu moyen yoo xam ni yaataloon ñu suñu secteur ba nga xam ni yombalal ñu sponsor ba nga xam ne dinañ mën di tëgg làmb te duñu soxla ndimbalu kenn loolu loolu loolu lañ soxal la ci réew mi kemande bañ fee am ñaanaatu bañ fee am ku nekk yor sa dignité imam bi bañ a di wër naan nañ ma jox cinquante mille pour ma am sukkaru koor noo imam bi dañ koy tegal loo xamante ni moom dina ci mën a gis boppam parce que imam bi ci société bi la bokk te dafa am taxawaay ci société bi kon war na di gis boppam ba nga xam ne du ñaan wala muy wala discours am nga ciy sentir lenn pour xalamal nguur pour mën di wéy di jot li koy jox lépp lu leen askan bi war lool dina leen ko jox loolu lañ bëgg a teg ci réew mi kanta nak biram souley yëkëti kaddu gi mu ko wax xeyna peut-être communication bi nam wara démé démé wul non mais ngeen bëgg fi nek bu bourguel di wax bay saga mais yow da nga rew yow yaay kan bourguel si lamb yow yaa si kan yaay kan si lamb yow lamb sax dañ la dañ la nawlo lamb lamb kenn dala ci nawlo nga ñew bëgg jël wax bi di wax bay saga mais arrêtel et puis tu nous dis que jafé jafé fay jafé rew mi Macky Sall moko fi def nang ko mësa ñëmé wax hein ah? ngeen yag and ak nguur gi muy lor askan bi muso len wax ci seen kaddu yi wax deug te yalla tax tey Birame soulay wax ngeen melne ay waay yow bu len ñu fonto allez vous faire chier man ma len ko wax allez vous faire chier may len ñu jamm on veut construire ce pays sans discrimination nak motax man ma soulay Birame Souleye waru woon yëkkati kàddu yooyu parce que fay nuru ke ni ay ay discrimination ak ay yooyu ñenn ñëw di victimiser wu c'était pas le moment de dire ça leader nga demal ci liñ la fal ga doxol ngeen def ay résultat nit ñi gis rupture bi fay leer tere ku ku tuddé ci lamb ku ci bëgg dem demal waye alalu askan wi ngeen tek ko fu mu nekk bu ngeen yoré seen salaire yu ngeen di jox promoteur ngeen jox ko ñun tere tuddé la lamb nga dem te république bi téré wuko constitution bi téré wuko ku tuddé lamb bu la neexee demal tuddé tande bir bu la nexé demal mais na nga dem ak say moyens na nga dem ak say moyens na nga dem ak sa salaire bu dé am nga sa salaire boy may ay promoteur nga def ko mais développer la mom ak secteur parce que lamb ay jeune ñoo ci nekk showbiz bi fecc beeg lepp aar la ay jeunes ñoo ci te ku nga kon république bi dafa woné ni budget yi dafa Sénégal n'y ci wara gis sen bop lool on a qu'on bien même pas mais li Birame Souleye di wax dafa moy alalu réew mi ñukay passer ak di ay milliards diko def ci pour endormir le peuple askan ce ñu leen di ray ñu leen di ñuy ay j'ai été tellement clair mais nekk fii bëgg a jaay yabaate nekk fi gis nga bu leen ñu fontoo man moom làmb yéen du ngeen ma fontoo xamante nañ bu baax da ngeen di yem rek ñu teg teg ko ci yoon jaa ngeen